asalaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi suñu sëriñ suñu kilifa muy alaaji Malick Sy Dabakh ah, man su ma suñu kilifa suñu wéyjur suñu sëriñ beaucoup de gens comprennent pourquoi moo tax ñu ngi koy nuyu di kut ziyaar ci turu délégation wu Yewwi Askan Wi Yewwi Askan Wi ni mu ko yàgg defee dafa ñëw tey pour euh, mottali si parce que fi nga bokk lépp loo fa def rek loo war def la ñu ànd ak euh, président Ousmane Sonko ànd ak président Cheikh Tidiane Dièye ànd ak président Déthié ànd ak présidente ayda ay Aïssatou Mbodj ànd ak euh, suñu député yi ak maire yi parce que ñëpp ngi fi tous les élus du département de Tivaouane que ce soit les maires les députés les conseillers les adjoints au maire ñëpp ñu ngi fi tey ànd ak ñun pour dox lii nga xam ni doxu mbégte la doxtu wareef la donc euh, sëñ Maodo say taalibe say rak say doom say jarbaat say mbokk bokk ak yow tarixa bi ñoo ñëw tey di la ziar si wax ji du gudd parce que xalifa wax nañu ko léegi jamono moo ko mayetul moo tax tànk yi moom tànku ziar la la wax la ni la xam nañ li nga doon xam nga fi nga féete xam nañ na nga taxawe ba tax na wax si seet si la fii day metti ni dañuy seet si sa wayjur wu sell wa sëñ Abdou parce que na mu daan waxe na mu daan tooge na mu daan jëfe rekk nga tànk yooyu nga topp yàlla na yàlla dëgëral say yos fëgg sa bopp dëgëral tànk yi ba foofu nga tegu yàlla yàggal la fa parce que nag sa nekkum fii dafa am njëriñ pour ñun sa parole dafa raar mais saa yoo waxee rek lu jëriñ askan wi la parce que nag yow à part léegu say wayjur yi ci àdduna bi nitu defar nga nit kuy rassembler nga nit kuy dëggu nga donc suñu ñëwee fii tey dañ lay rendre omage boobu ngir loolu mais di wax aussi nga jottali ñu suñu nuyoo ak suñu ziar suñu wayjur suñu sëriñ sëñ Babacar Sy Mansour xalif général di ko nuyu di ko ziar di ñaan yàlla fëgg bopp bi dëgëral tànk yi mu jiituñu ba ci kanam a kanam dëgg yàlla ñun ñëpp ñoo ngi ànd di ko ñaanal di félicité nag famille bi yëpp parce que gàmmu moment la boo xam ni dañuy màggal gën ji mbindeef suñ ca tolloo nag xol yu rafet xel yu dal ànd gu wóor ak jekkal rek moo fi war moo tax loolu mooy suñu taxawaay fii tey que ñuy wax ni yow nanga ñu jottaleel ci suñu wayjur suñu kilifa ni ko yeewi askan wi projet la mais àndu gor la ak i nawle yoo xam ne réew mi leen ñor jàmm réew mi moo leen yor jàmmi askan wi moo leen ñor et lépp loo xam ne jàmm la ñu nga ca lépp loo xam day defar askan wi ak dëkk bi ñu nga ca wax ko ni ko ay taalibeem ak ay doomam ñooy dalal xelam ni ko du nitu fitna du ñuy nitu problème mais nu sommes des citoyens et des yoo xam ne réew mi rek moo ñu ñor dañ bëggoon wax loolu aussi ñëpp yóbbaale ko parce que tey soo demee di wax ci gën ci ñun da nga cay wax la nga xam ne mooy sa wéeruwaay mooy jéem a roy jéem a topp jéem a mel ni nga xam ni ñi gën ñi baax loolu lañ nekke en tout cas ñu ngi lay ñaanal ñu ngi lay sant yal na yàlla fëgg bopp bi dëgëral tànk yi ziar boobu rek lañ doon def di gërëm di sant nag parce que bañ mujjee gisee ñu jublu woon fa ñu jublu ñaanaloon nga ñu yal na la ko yàlla fay parce que ñaan gi gis nañu njëriñ merci beaucoup. ma nuyu nag sama rakk suma xarit muy Mamadou di Kane kii nag sama jigéen bu yàgg la ay Aïssatou faal képp ku xam papaam c'est c'est ça la fille de Alioune Fall donc son père était l'un des plus grands journalistes de ce pays et elle a été pendant longtemps à la francophonie day soog a ñëw donc euh, jërëjëf si ngi yàlla na yàlla merci beaucoup